salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki jalaaw mbokki yéen seen du Bargny Tëngéej ñu ngi leen di nuyu di leen dalal fii seen télé Dialaw TV ci seen émission mbir mi ma ànd seeg sama xarit sama doom nday per le franc français l'homme de Toulouse bu ko defee damay daal di nuyoo askanu yéen bàyyi ko moom mi nuyoo bu ko defee damay nuyu sama mbokku daagay naan laan tum ne mi ngi rek mot jamde mot baabi comme xar bono de mot jamde jigi doxo dem ba fële si duwaanu njege ñaaw naan mexe fegere seereer sim naan noonu bu ko defee mënuma ko bañ a nuyu sama papa sama maam amin ta basan naan kan sa becco eh, xaay xaaye eh, mbaata tuuf mbaata tuuf tuuf mbaa njuuf bu ko defee damay bàyyi perse mu nuyoo askanu jalaaw merci le grand lay bonjour bonsoir je vous salue les chers amis monsieur ou madame ça dépend si kii koy seetaan mais gis naa ne man ki may ki may seetaan célibataire là. waaw bi moo tax ma ne kon célibataire yi ñëw ëpp lu ñu may oui c'est vrai bon mbir mi moo ngi soog a pour ah aussi les les deux célibataires là le le monsieur Nao et le petit Kassa là le grand bandit Bah oui <laughs> <laughs> bah oui merci beaucoup merci waa c'est une émission mbir mi fii lay xawee si Dialaw TV lu bees tàq la bu ko defee ñu koy bëgg bëggalee askanu Dialaw fii si Dialaw TV gars yi à bientôt incha allah.